dal leen ak jàmm fii ci Paradise TV ñu fas yéene ànd ak yéen yuñ jot a am si ngoon si waaye balaa ñoo ñu seeti ponk yi nga xam ne moo gën a fës ci xibaar yi. jëwriñ bu ñu dénk wàllu bitim réew te ñu waatloo ko ci fan yi ñu woon gannaaw moom wax na ne dina continuer di liggéey eh, ci ki nga xam ne kooku la uutu liggéey bi fa jot a bàyyi. xam ne moom mooy Eden wax na ne moom dina bàyyi football team boobule di Chelsea. réewi Nigeria dañ leen sas pour ñu def seen kéemtalaay kàttan xeex ban bi yi nekk ci biir réew boobu leen loolu moo di woon ponki xibaar yi man la Awa Gueye booy ñu ànd ak yaatal ki nga xam ne moom mooy euh, jëwriñ bu ñu dénk euh, wàllu bitim réew euh, te ci fan yu ñu woon gannaaw ñu ngi ko doon waatloo di mu docteur Mamadou tàngara wax na ne moom fi mu ne nii lim gis rek mooy pour mu tàmbalee liggéeyam ci fi nga xam ne ki fa woon ci jëwriñ bu ñu dénk wàll bitim réew fi mu em moom fa laay tàmbalee liggéeyam Euh, lii mu ngi ko doon wax ak ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy suñ taskati xibaar yi nekk fii ci biir kër gi euh, di Paradise TV ci waxtaan boo xam ne ñu ngi ko doon am ak moom ki nga xam ne nag moom mooy docteur Tangara wax na ne loolu nga xam ne moom mooy lim jëlee ca United Nations maanaam xam-xam bi nga xam ne mu ko jëlee ca United Nations moom la bugg a indi ci jowrinam su ko defee ñoom ñëpp ñu mun see njëriñoo te mu mun a doole li nga xam ne moom mooy yokkute jowrinam boobu nga xam ne ñu ngi ko ko Dinka ñu dem seeti ji xibaar bi. man nag li may indi ci liggéey bi mooy jàng bu ndaw bu ma jàng fële ca New York place bi sax man nekkoon naa ci te mun naa leen a wax ne United Nations place la boo xam ne lu bëri nga cee jàng ci wàllu diplomatie man nekkuma di ñëw fii pour def leneen loo xam ne eh, lu ees la man damaa ñëw di liggéey eh, te teg ci damaa def loo xam ne damaa dëgëral ki nga xam ne moo nekkoon ci liggéey bi ci lu bañ a yaaga di ngeen gis man dinaa ci yokka cuma xam-xam teg ci dinaa liggéey ci anam boo xam ne dina méngoo ak suñ diplomatie bi comme ni ma la ko waxee woon man ci ministrie bi laa bokka man maay woon permanent representative fi Gambia bi fële ca New York man ñëw ma fii pour yaaxa man li may def rek mooy pour ma dëgër loo xam ne moo fi nekkoon kooku moo di woon docteur Momodou Ah, ki nga xam ne nag moom mooy permanent secretary bu ECOWAS ECOWAS nag ah, benn mbootaay boo xam ne la ah, Afrique sow jant ñoom ñoo ko taxawal pour seeni doomi réew ñoom seen permanent secretary bi nekk fii ci biir réewi Gambia mu doon wax ne doomi réewi doomi réew mi dañu war a fonka li nga xam ne mooy jàmm bi nekk fii ci biir réew mi ki nga xam ne nag moom mooy Vaba Guy Flow mu doon waxtaan gannaaw buñ doon màggal ñeneen fukki at ak ñetta Euh, fii ci biir réew mi bi nga depuis bi euh, ECOWAS euh, taxawee lii yëpp mu ngi doon xew ni ki samedi bii ñu woon gannaaw leneen li nga xam ne moom la feeñal rek mooy ne bépp dëkk boo gis jàmma daf ci war a am su boobaa yokkute bi gën a yomba ñu dem ak xibaar bi as mbootaay la boo xam ne ñoom jàpp buñ jàpp Gambia jàppewuñ benn dëkka fii ci West Africa ñaari at yu paase ba tax na ñoom ECOWAS taxawaay bi ñu taxaw mbiri Gambia ci élection eh, bu paase woon 2016 boobu tax na sax Gambia eh, li buggoon a xew fii xewut mooy maanaam eh, ay ay ay fitna bu mag buggoon naa ikkatiku fii ci Gambia waaye ECOWAS nag ñoo taxaw ba gis ne loolu du fi am moo taxin koo xam ne moo toogal ECOWAS fii ci réew Gambia kooku mu ngi ñaax ñëpp mu ngi oo ñëpp. ñi nga xam ne Gambien leen ñu liggéey pour jaama sax fii ci réewu Gambia ECOWAS nag ñoom ñu ngi maagal li nga xam ne mooy ñeent fukk ñetti at ñoom depuis mbootaay bu sosoo ECOWAS mbootaay boo xam ne la ECOWAS mbootaay boo xam ne la fukk eh, nee naa ko ba mbootaay boo xam ne fukk ak juróomi réew ñoo ko sos fii ci West Africa ñoom nag ñu ngi ko sos fële ci 1975 lañ ko sos eh, ci fële ca Nigeria te ki nga xam ne mooy seen kilifa bi fii ci réew mi Baba Guèye moom wax na ne ECOWAS taxawaayam mooy pour gis ne jaama sax ci West Africa président Adama Barrow moom wax na ne moom pare na pour liggéey ak ECOWAS pour jaama sax fii ci Gambia waaye nag wax nañ ne tamit ECOWAS tam pare nañ pour gis ne jaama joojule mu am fii ci Gambia. ba léegi yéen a ngay déglu Paradise TV euh, li ñoo def rek mooy ñu dem ak yébaane bu ñu dellu see ñu dem seeti ji euh, xibaar yi euh, tàggat yaram ak xibaar yu njëlee bitim réew. kaay leen ñu jokkoo ci social media bi ngeen wécceek ñun seeni xalaat ci Facebook PTV Gambia Instagram PTV Gambia Twitter PTV Gambia YouTube PTV Gambia mën ngeen a download app bi jaaree ko ci Google Play Store am ko ci seeni mobile. BTV ñooy ceeñeeri Gambia xibaari tàggat yaram ki nga xam ne moom mooy Eden Hazard moom wax na ne mun naa xam mu bàyyi team bi nga xam ne moom la mu doon playal di Chelsea moom si waxtaanam ak taskati xibaar yi lim feeñal mooy euh, fu mu nekk ni waxtu dafa jot pour mu dem yëngu ji ci leneen ñu dem ak xibaar bi. club bi nga xam ne moom la Eden Hazard di playal ñoom am nañ jaaxle lool gannaaw bi Eden Hazard waxee ne moom dina bàyyi euh, football club boobule di euh, Chelsea. Hazard moom mi nga xam ne am na euh, juróom-benni at ak club boobule di Stamford Bridge ci réewi Angleterre fi mu nekk nii moom la ñëpp di laam-laamee di wax ne Real Madrid dañ ko bëgg a jëndee ci xaalis bu tollook euh, téeméer ak euh, juróom fukki million yi euro. ci beneen xibaar bi feeñ mooy moom mi nga xam ne moom mooy Eden Hazard moom am na ay man-man yoo xam ne mun naa jël place ki nga xam ne moom mooy Cristiano Ronaldo te Cristiano Ronaldo moom ci benn bés bu ay bi ñu woon gannaaw bàyyi na team bam nekkoon dem di playali team bi nga xam ne moom mooy Juventus. gannaaw ay watu bu Eden Hazard waxee ne moom dina bàyyi football team bu la di Chelsea si la te Chelsea dem jël ki nga xam ne moom mooy Maurizio Sarri pour mu nekk seen manager bu ees bi. moom mi nga xam ne moom mooy Maurizio Sarri moom moo wuutu ki nga xam ne moom mooy Antonio Conte. Eden Hazard moom dooroon na di play ak football club bi nga xam ne moom mooy Chelsea ci atum 2012 euh, ci pay boo xam ne ëpp a euh, fanweeri million euro te sax moom mi nga xam ne moom mooy Eden Hazard jàppale na clubam bi bañ gañe ñaari Premier League FA Cup ak li nga xam ne moom mooy League Cup ci diir at yi nga xam ne mu ngi doon play ak Chelsea. loolu moo di woon xibaari tàggat yaram lu ñoo def mooy ñu ànd ak xibaari bitim réew. kay leen ñu jokkoo ci social media bi ngeen wécceeg ñun seeni xalaat ci Facebook PTV Gambia Instagram PTV Gambia Twitter PTV Gambia YouTube PTV Gambia mën ngeen a download app bi jaaree ko ci Google Play Store am ko ci seeni mobile PTV ñooy ceeñeeri Gambia. ci xibaar xibaari bitim réew yi euh, réew yi Nigeria euh, dañ nekk ci ron xadar maanaam préjo euh, pour ñu seet naka lañoo def ba wayu yi nekk ci biir Nigeria génn fa parce que ñoom ñoo nekk ci gannaaw ñaawteef yu bari yoo xam ne mu ngee xew surtout si seen tunda boobu la nga xam ne moom mooy Zamfara State te luñ jot a wax rek moo nekk ñoom dañ dee dem ci dëkk yooyu le wala ci gox-goxaan yooyu loolu la di fa rey ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee ñu ànd ak li nga xam ne moom mooy xibaar bi foofu ci réew réewi Nigeria mbootaay ji nga xam ne def yëfu saay-saaya leen tax a jóg yorit seen i gànnaay ñoom nag duggoon nañ ci gox gi ñu xamee si Zamfara gannaaw buñ fa duggee nag daanoon nañ ñi nga xam ne ñoo dëkkee si gox jooju nangu seeni alal mbootaay gii nag yàgg nañ ci lii ndaxte ku seet si ay at yu paase yàgg nañ di ko def takkandeeri Nigeria nag wone nañ ne lu ëpp si ñeneen fukki nit fàttu nañ si ñooñu sax seeni ay mbokk suul nañ leen ba pare waaye nag am na ñoo xam ne fàttu nañ waaye benn tey jotangu ñi seeni néew ci 2014 bandi yi nekkoon nañ di dugg ci biir gox yi di laajte nit ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox yi pour ñu jox leen seeni alal nguuri Nigeria nag mënuñ woon see def dara te ba léegi it mënuñ leen a tere dugg ci gox yi di nangu alali jàmbur yi mbaate di leen fàtt président ni Amerika di Donald Trump wax na ne ndaje bi nga xam ne moo war a xew ci digganteem ak ki nga xam ne moom mooy euh, leader bu euh, Russia di Vladimir Putin euh, amut benn sikki sàkka seen waxtaan bi ñu ngi ko war a def gannaaw bu yenn ci doomi réewi Russia bu waxoon ne ñoom ñoo de suuxlu sànni karta yi nga xam ne moo nekkoon di xew ci réew yi Amerika ñu teew teewlu xibaar bi. séentuwut yaakaar ci ndaje ji nga xam ne moom ak Russia seen njiiti réew mi gën koo xamee si Vladimir Putin ñu ngi ko war a am Donald Trump nag leeral na ne ci biir ndaje gi dina fa ekkati waxi fukk ak ñaari doomi réewi Russia ñi nga xam ne tegoon nañ leen baaraami tuuma ci seen élection buñ xam ne ñu ngi ko amoon si 2016 ndaxte ñii waxoon nañ ne jëmoon nañ see dugal seeni loxo waaye daal si biir kàddoom leeralul ndax waar doomi réewi Russia yi dinañ leen andi USA tul àtte leen nag weddi nañ tuuma yi ñu teg leen loolu rek lañ leen amaloon ci xibaar waaye balaa ñoo tàggatoo yéen ñu dem sa xoolaat li nga xam ne moom mooy ponk yi gënoon a fës ci xibaar yi loolu rek lañ leen amaloon fii ci Paradise TV di leen ñaanal guddi jàmm dinañ dellu si waat suba bu uh, sobee yàlla di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci boppi xibaar yi ak ñi nekkoon ci caméra bi ak uh, ci wàllum technique bi man la Awa Gueye booy uh, bés subaam jàmm